Eh, ci ki nga xamante ne rek moom moo daal di créer lii di APR moom ci jëmee boppam rek ginnaaw bu mu gisee ni rek dafa daal di jël ab dogal nak ngir continuer dundam foofa ca diwaan bu Maroc waaye li ci gën a doy waar nag ma ngay jokkalante rek ak demalante ci service su nga xamante ne rek moom mooy président français bii di Emmanuel Macron moom nag la mu daal di xamle moom conseil Ousmane Sonko bii nag nekk membre ci parti bii di Pastef ne na daal alliance pour la république di APR ma ngay sàkku rek ñu daal di koy nasaxal mu gën a gaawee waaye nag bu ñu ko defee rek nekk na mbir moo xamante ne rek day mel ni am na ab honneur national waaye nag bu ñu ko defee tamit dafa daal di tënku rek ci loi ak ci fierté bi nga xamante ne rek daal di nañ koy am moom la mu daal di xam ne ci boobu les pages te suñu nattangooy Sénégal daal di koy fësal moo di nag ginnaaw ba nga ne rek kii di Macky Sall jóge ko na ci bopp nguur gi nag fas yéene dem doxu ji fi nga xamante moom mooy ca diwaan bu Maroc ba noppi rek nekk envoyé spécial bu 4P ñu di peko pak acte euh, de Paris pour les peuples de la planète kii di Emmanuel Macron tabb ko ko nag moo tax rek ñu war a mën a nasaxal boobu les parti bu ko defee rek ñu daal di koy def nag ci nu mu gën a gaawee ndax honneur national nag lañ ca daal di soxla te suñu luwaay yépp lépp rek dinañ ko nangu ak lii di ab fierté di kat yu nga xamante ne kii di Cheikh Khoureyssi Ba daal dina koy euh, sàkku jërë ngeen jëf ci teew lu bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification yi ngir mën a am yeneen i xibaar